li waroon unir armée bi ba mu nekk benn lu dëgër mhm. pour mën def face à l'opposition amatu fa mhm. léegi Macky ci force de sécurité de défense rek la compté mhm. waaw ya yàlla xam na ni militant yu bari soo demee ñiy wootewu bennoo mhm. ñu ci bari soo demee dañ lay wax ne non ñun élection yi Sonko la ñuy voté wala Jomaay. Mhm, bari nañu koy wax. waaw mhm. c'est que xaalis ñu leen di kii parce que dañu nekk ci crise bu metti mais soo leen joxee ñu ñu jël. ñu jël <laughs> alors léegi dama bëgg nu waxtaan ci candidat bi nga xam ni euh, moo di Bassirou Diomaye fay waaw daanaka. Euh, mu nekk ci opposition bi yor coalition boo xam daanaka moo ëpp doole ci lépp loo xam tey jii coalition nga nu ni candidat boobu amul li nga xam ne nag moo di expérience daanaka képp ku nekk ci kujje gi yaa ngi koy wax wala aussi ñi nga xam tey jii ñoo faree ci euh, parti bi di euh, APR coalition benn bokk yaakaar bu ñu attaqué Diomaye Faye ci ñaar lañ koy attaqué bis njëkk mooy amul amul amul euh, compétence waaye aussi. sur sa personne ñoom aussi ñu ngi koy attaqué ci loolu tey jii ba jàng nga mën a defal ci li nga xam ne mooy attaque yu ñuy attaque kii di Bassirou Diomaye Faye waaw euh, loolu aussi dañuy sant yàlla. Mhm. Euh, man de bëggoon naa jaar ENAM. Mhm. Macky mhm. amul niveau ENAM parce que ENAM bokkoon na ci crème bi forme suñu administration. muy ci justice muy ci impôt muy ci domaine muy ci lu bari trésor lu nekk administration. corps de contrôle yi. soo jëlee administration territoriale mhm. gouverneur yeeg préfet yeeg yëpp ENAM moo leen formé mhm. ENAM du cuune moo fay dugg da ngay dem ba am maîtrise nga def concours doogu dugg ENAM mhm. ñu amoon ay professeurs yu xarañ parce que loolu yàlla daf ñu ko may dañ doon wax ni Sénégal li ëppoon solo mooy adduna bi ba mu daj bokk nañ ci réew yi gënoon am état bu wóor suñu état moo tax doo dégg ay coup d'état doo dégg yenn kii parce que dañu dañu fonkoon formation ku hmm. mel ni Diomaye yàlla may ko niveau bi mu am ku mel ni Sonko hmm. waa impôt walla justice ay magistrat extraordinaire moo tax au passage sax damay saluer magistrat yoo xam ni mooy ki nekkoon Casamance hmm. naka la tudd encore. Euh, juge Racine Thion. waaw de Racine Thion moo nekkoon kii tribunal instance bu Dakar waaw Sabassi Faye mhm. ak Racine Thion bind nañ ci histoire Sénégal taarixu Sénégal loo xam ni. Mhm. dafa gën redorer image u administ justice. Mhm. donc nag dañu amoon ay école de formation pour suñuy cadre Bassirou Diomaye Faye génn ci école yooyu xam. administration naka lay demee li des mooy dugg na ci parti am programme hmm. parti lu tax ñëpp dem ci ñoom parce que effectivement seen programme su fekkee ni dañ ko jël hmm. li ci ëpp solo Sénégal yi loolu lañ soxla mooy moomaat seen réew hmm. ensuite delloowaat pouvoir bi au peuple parce loolu moo ñu jotee woon ak Ablaye Wade loolu moo ñu jotee ak Macky Sall constitution de 2001 dañu ni woon Ablaye Wade Abdou Diouf doole bi mu am dafa ëpp. Mhm. nañ ko wàññi soo ñëwee su su yàlla defee nga gagné pouvoir doole bi da nga koy wàññi jox ko yeneen euh, pouvoir yi. Mhm. muy législatif muy judiciaire ensuite euh, ñu organiser peuple bi lu mel ni ay conseil euh, kii de quartier ay conseil de quartier conseil de ville nga xam ni population yi ci seen bopp dañuy impliqué wu ci li leen di gérer mhm. mais beneen bi. mooy gestion kii saa su fekkee ne dañuy dem pour euh, gérer ay situation mm-hmm. dégg nga euh, collaboration bi war a am ci secteurs yi mm-hmm. ah euh, état bi daf ko war a jël en charge mm-hmm. waaw loolu la ñuy wax gestion participative gestion participative mooy population yi ci seen bopp dañ leen di impliquer ay conseil de quartier conseil de village ah après au niveau départemental ak yu demee noonu. Mhm. pour population yi am ñoo xam ni ñoo leen di représenter renforcer aussi collectivité locale. Mhm. ñoom ñuy mën di liggéeyandoog conseil de quartier yi bon loolu moo doon am solo mais Diomaye mais yàlla may na ko ci loolu. Mhm. Pastef yàlla may na ko ci lool beneen bi fi may jeexale ci kaw Diomaye man. kañ la ma Diomaye séduire mooy événement deux mille vingt et un deux mille vingt trois dafa ñëw ci Sonko ne ko dëgg la Sénégal yëpp ñun la ñu àndal mais am na fu situation di toll. il faut ñu xool ni ñuy négocier. xam nga soo xoolee bu baax bi nga may interviewé fële dama leen nii ñii il faut ñu dialogue avant ça ñuy wax dialogue. Mhm. mais booy bëgg ma kii foofu ne woy noo ñoom. comprendre nu ma boobu waaw nañu jëlee fii Macky par la mm-hmm. force. ma ne leen déedéet mën nañ ko fi jëlee mais mm-hmm. intelligemment. Mm-hmm. donc mu wax wax ju am solo dem ba nii dafa bëggoon woo doomu. ak ah, ok Macky parce que am na ñoo xam ne dañu wër Macky Sall dugal ko ci erreur moo tax. seen intérêt la ñu gis parce que ay charognard lañ. ñoom l' essentiel fuut ay weñ lañ fuut tooy ñu takk. pour wax la ku responsable mooy doxalee noonu mais mënoon na wax ni non ñun dañ fi jëlee Macky par la force. Mhm. loolu aussi loolu lañu wax le sens de la mesure. Mhm. dirigeant bu baax day am lu ñu tuddee capacité d'écoute. Mhm. capacité de synthèse. mais avant loolu capacité d'analyse mais en même temps nga am lu ñu tuddee c'est-à-dire euh, ouverture par rapport aux autres. waaw te loolu am na ci jomaay leneen li ma ci yokk nag mooy dañuy wax ni mosul jiite réew mhm. mais bon dañoo xamul adduna bi d'abord damay njëkk a jox première puissance économique et militaire du monde mooy États-Unis mhm. bi ñuy jiital Obama dañu war a dem laaj lan la Obama amoon mhm. comme expérience et pourtant bokk na ci ñi nga xam ne jàpp nañ ñoom ñoo tane n'est-ce pas exactement soo jëlee même Kadhafi wala euh, kii nag euh, Mandela mhm. ñoom mosuñu jiite Kadhafi coup d'état la ñëwee mhm. en 1969 mu ngi amoon 29 ans mhm. coup d'état la ñëwee est que dafa xamoon nu ñuy jàngale nu ñuy nu yore réew mais actuellement Ibrahima Traoré capitaine mais li muy def moo tane li Macky Sall di def moo tane li eh, eh, kële eh, ivoirien bi di def Alassane Ouattara maliens yi militaires yi man je suis foncièrement contre les d'état mhm. mais dama ni actuellement ñii nga xam ni ñoom ñooy chef d'état yi nga xam ni ñoom la ñuy wax dañu am expérience mhm. tey ñu ngi gën woon nit ñi que attention sérieux moo am solo ci yore réew mhm. mais su fekkee ni manque de sérieux am na nit ki hmm. gisatu ñu xam-xamam. Hmm. loolu mooy suñu problème. même si wàllum âge am aussi ñu ngi daan xale la waroon la ko jox Sénégal. mais d' abord tey tey ci jamono ji ki gën nekk plus jeune président du monde. Hmm. chilien la étudiant la woon comme ñoom Sonko rek. engagé mu ngi am trente cinq ans. trente cinq ans Bassirou Diomaye moo ko mag. junni yoon. soo jëlee ku mel ni capitaine Ibrahima Touré Bassirou Diomaye moo ko mag. Mhm. bari nañ fi wax naa la kaaw kii Khadafi. Euh, 29 mhm. ans Bassirou Diomaye ko mag. Mhm. donc day am ñoo xam ne dañuy assumer wu pour wone ni que lii beneen bi ma ci yokk nag malheureusement ñun débat yi ñuy debaat nekkul politique. sax dañu dugal tey dañu rabaisser niveau. débat politique Sénégal niveau boo xam ne même Guinée yooyu ñoo ñu raw parce que taxaw di indi ay waaso. di indi ah nit ni ko yàlla bindee. te mu wóor la ni kooku moo la gën li mu am yow xaajuloo am loolu. parce que biñ ñu boolee ñun ñëpp trajectoire ñun ñëpp ñu duggandoo école moom mu génn ci crème bi. waaw donc dañu amul lay. Mm-hmm. situation yu mel ni nag soo amee toujours. prétexte bu nekk dinañ ko ut pour déstabiliser mhm. mais nag damay joxe exemple euh, benn pilote américain mhm. dañ ko jox benn avion dañ leen jox benn avion boo xam ne avion bu am crise bu doy waar mhm. machine bi non avion bi bëgg daanu mais expérience pilote bi moo tax ñu sauver vie ñii chaque jour ñu ngi jàng ci événement yi parce que tey li ñu capitaliser ci xam-xam ci politique ci ni ñu yore réew dama ni moo tax sénégalais yu bari jëm ci ñoom ju ñoom rekk fii candidat waaw daanaka 19 candidats la woon de mais 19 <laughs> mais avant 19 candidats yi ñii yàlla mu ngi leen fayal depuis deux mille 2021 mhm. bien avant ça sax mais deux mille 2021 la leen yàlla fal mhm. jëlaguñ nguur gi nag mais peut-être ci euh, naka 24 décembre bi la ñuy jël nguur gi. Mhm. mais yàlla defal na leen trajectoire boo xam ne ñëpp xam nañ ah tuuti moo des ñu yootu ci nguur gi. Mhm. donc nag dañuy sant yàlla. exactement alors euh, nga gis aussi candidat bi di Amadou Ba jiite li nga xam nag moo di mouvance